mbokk yi seetaan Tektal TV tey nag dana war a def émission bu spécial ak spécial muy Serigne Modou Kara Lo Serigne Modou Kara euh, ñi ngi nii jëm aéroport. te daal mhm. émission bi ni def duñ toog benn place dañuy wër rek. incha allah loolu moom tawféex la. Mhm. ñu ngi sant yàlla baax di leen wax ngeen xaar ko. Mhm. émission bu am solo lay doon incha allah. bu neexee yàlla incha allah. ñi abonné Tektal TV bu baax a baax émission bi dinañ leen wan yooru aéroport ci kaw ci suuf euh, fu rafet rek dinañ ko gis kon daal tey dinañ gis émission boo xam tooguñ ci saal yi. incha allah bu soobee yàlla nañ ko xaar émission bu spéciale lay doon. Mhm. incha allah numéro bi 77 750 22 60 beneen bi. 76 396 53 81. am na whatsapp Kër Massar. Are Jamil Karo Touba Madiana 6. Touba Madiana 6 kon Serigne Modou Kara Lo. Euh, seetkat bu mag bi ak fajkat beeg ñaankat bi ci Tektal TV ngeen abonné bés furus bés cloche émission bu ñëw ngeen am ko topp leen ñu yéen waa bitim réew diaspora bi ñun ñoo dëkk bi ba mu dëgër ak suñ ñaari loxo xewal dikk loraange nag sa yére rafet na de. incha allah waaye yére bii de sama benn euh, taalibe bi moo ma ko ñëwal. nga xam ne maa ko jàng alxuraan dalal ko. Mm-hmm. mbayloo di sama rakk. Mm-hmm. ñëw ko ba mu baax andil ma ko nii. nekk Touba euh, ci garas Daarul Moxti. macha man nag ki ma ñëwal Sam Couture la. nekk ca Derkile. Euh, cité Asegna Derkile ci wetu école Khadim Rasoul numéro bi di 77 645 01 73. Mamadou Ndiaye Diop Sam Couture ak Soxna Diop soxnaam mais jëmm tiisi bi nag kii moo ko indi Pa Seyni Diop ca France doon borom Jurbel euh, léegi ñu fi tegtal nekk doon su nit doon koo xam ne ko baax la daal Papa Elman ak Mati ak ñoom ñëpp bu baax a baax kon mooy ñaw yi du saw joxe na ci ñu bari joxe nan kon daal ñu ñaar ñëpp rafet la ah, kon ñu topp ñu daal incha allah tey njëriñ dina feeñ xewal dikk ngi rek jaajëf merci la rabbi law kon jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Tektal TV bu baax a baax a baax jëm nañ ñëw nañ fii di campement euh, Diamoral ñu ngi koy wax campement jànkeen wolof sëñ Modou Kara Lo kon tey dama la émission bi nar a neex de. waaw sant yàlla bu baax mi nga xam ne may nañu ñu agsi ci jàmm ak salaam. Mhm. incha allahu rabbi lii moom première partie la waaye buñ doxee ba ci kanam. Mhm. daañu gis ne li ñu andi moom dana doon lu bees tàq mu soobee yàlla incha allah. mais seet daal li ñu ci meloon loolu moom toujours day gën a jëm kanam mais du deltu ginnaaw. gis naa ñi ngay seetal dañuy bég di kontaan fu mu toll. Mhm. naan kii moom wax dëgg yàlla euh, assurance am ci ko prix boo xam ne que dafa yokk gi sax waa bitim réew ko def ndax kontaan gun kontaan ci yow te ku ñëw dina indi ñeneen waaw loolu li ko waral mooy nit ba bu leen yàlla boole faw nga ci def ndimbal mm. te xam nañ ne nit ñi mënuñu ko ñàkk ndax loolu mooy defar seeni mbir moo tax suñ borom nag may nañu ci te nit ñi nangu nañ ko mooy li ma la waxoon ne la daanaka duñu waxati mën nañ ko mm. waaye nit ñi ñooy wax ne mën na ko mm. loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax incha allah te li ci kanam sax mooy dàq soobee suñ borom kon émission spéciale ci Tektal TV ngeen abonné bés furus bés close émission bu ñëw ñu jël avion wàcc dugg fii euh, Air Sénégal nag comme ñu ngi gërëm Sadio Mané gërëm ay Aïda Mbodj dañ ciy jàppale da yent nañ fekk Cheikh Tidiane Dieye bëggoon nañ mu wax sax mm-hmm. mais comme ak protocole bi ni mu demee mm-hmm. euh, ñoom seen i mbir du dañu tëb rek wax mm-hmm. Cheikh Tidiane di ministre boo xam ne que tamit euh, ak waa Ousmane Sonko ñëw nañ daal fii ci famille Ousmane Sonko kon fii dañ siy kontaan bu baax a baax ndax ñun ay patriote lañ yow patriote nga bu mag bu mag wallaay bu mag ñu ngi koy ñaanal baax nag suñu borom may ko ndam ba liggéey bi bañ dénkaat ko sax moom mu doxal boppam ñu ngi koy ñaanal baax a baax incha allah bég nañ loolu nag ci teew ci dëkk bi macha allah macha allah ko Ousmane Ndiaye ñoo ngi fi docteur Wade ak ñëpp daal kon hmm. Ousmane Ndiaye xuree ja ak yëpp euh, Ousmane Sonko kon nag bëgg naa sama invitation bi émission bi nga ma digoon hmm. depuis 2019 pour ñu def ko ñu def ko nag hmm. ñëw naa sa dëkk sama xel dem ci yow bu baax a baax a baax a baax kon sëñ Modou Kara Lo fii dëkk bi daal gis ngeen fii lu aare lu cosaane ah waa dëkk bi moom macha allah moom boo ci duggee rek sa xol dafay sedd parce que dafa doon dëkk boo xam ne naat na macha allah Euh, te ñi fi nekk tamit nit ñu baax lañ. Mm-hmm. ñu yaatu lañ. waaw kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom. Uh-huh. Uh, saxal fi jàmm. Uh-huh. Uh, ki nga la dëkk nga xam ne ku tudd dëkk bi Ousmane Sonko. Ousmane Sonko uh-huh. waaw ku tudd dëkk bi rek sa dem ci moom. nag dañ koy ñaanal yàlla di ñaanal waa dëkk bi. te xam ne fii daal tey war nañ fee def ay émission yoo a a defee feneen ak Amérique ak Asie yëpp daal incha allah bu baax a baax a baax kon yéen ñi seetaan Tektal TV ngeen topp ñu bés rouge bés cloche bi émission bu ñëw ngeen am ko xewal dikk loraange dakk Tektal TV télé bi wóor Tektal TV gis ngeen mbedd yi leen wan gis ngeen liñ leen wan ci dëkk bi lu rafet rek ngeen fi gis ak lu nice bu baax a baax a baax a baax sëñ Fallou Mbacke Diop ngoog moom dafa bokk ci def émission bi. muy noonu ko bu baax a baax xewal dikk loraange dakk kon ngeen topp ñu. Eh, ak équipe Tektal TV ñuy réaliser docteur Wade ma Massamba Diop Petit soow ñuy wër di leen wan lu rafet rek ànd kook wax ju am solo bu baax a baax Tektal TV mooy télé bi wóor jërëjëf euh, sëñ Modou Kara Lo gis nañ ne ñu ngi wër dëgg nañ fenn mais li ñu doon wax sànq muy wàllum seet seet il faut ñu ñëwaat ci mais balaa ñu ñëw ci seet dañoo bëgg a ñëw ci rab dañuy gis ñenn ñi euh, xale boo xam ne que day yeex a wax ñu jiñ ko rab mm-hmm. xale boo xam ne day day dem ba nekk magum jëm di saw lal ñu jiñ ko rab mm-hmm. euh, ku ñàkk xaalis ñu jiñ ko rab mm-hmm. ku amoon ñàkk amatul ñu jiñ ko rab liñ jiñ rab lépp est-ce que moom la. waaw rab de jàpp naa ne sax liñ ko jiñ. Euh, am na lu luñ ci bàyyi. Mm. donte dinañ ko jiiñ loo xam ne defu ko. Mm. li am solo mooy ko ko koy jiiñ. Mm. na fekk moom mu xam ko. xam ko maanaam ba man a seet ba mën a xam ne kii. Mm-hmm. lii nekk ci moom. est que rab moo ko ko def. wala li nekk ci moom seytaane la. wala nekk ci moom dafa umu. Mm-hmm. wala liggéey la. waaye rab moom. li mu man dafa bari doole. ndax suñ boroom moo ko bind. ba mm-hmm. pare taggatal ko maanaam lu bare bari. moo tax alxuraan bi mu koy tudd. Euh, dafa wax ne maanaam lu ñu ko tuddee maanaam ku dëgër bopp. ku dëgër bopp am na fu ko suñu borom waxee boole ko ak nit. tudd leen as saqalay ni maanaam ñaari way dëgër bopp yi. moo tax ki ci baax toujours bu àndee ak nit. Mm-hmm. daf koy jëriñ ci lu bëree bëree bëri mm-hmm. waaye ki nga xam ne daf ci safaanu tamit mm-hmm. su xasee am ba dugg ni rek bu dajewut ak ku yàlla dimbale dëgg-dëgg mën naa yàq addinaam moom nag ci ëpp li mu li mu mën a yàqal nit benn mu yàqal ko ci wàllu liggéeyam mu liggéey di sonn du am dara di teel a xëy di guddee wàcc te gis na du man am dara benn ba mooy man na ko yàqal ci biir wàllu néegu sëy ci biir néegu sëy nag ay façon yu bari la benn mën na def ndaw si Mhm. jékki-jékki rek bañ borom këram te du xam lan la. Mhm. wala góor gi jékki-jékki a ko. Mhm. li nga wax tamit ci xale buy sawlal. xale moom baaxoo naa a baaxoo naa saw waaye dafay dem ba am benn aas boo xam ne bu fa àggee rek. dafa war a bàyyi waxuma la xale waaye dafa am mag. ñoo xam ne dañuy dem ba mesure mhm. ba mat a dugg ci néegu sëy moo xam ci góor wala ci jigéen waaye da nga gis ne loolu da leen di arrivé xam nga loolu du ak neen te nam mel na ñi ngi ci toilette mhm. euh, di tuur ndox ngi tëdd seen kaw lal loolu ku ne xam na ne nekkul loo xam ne lu lu lu neen la mhm. kooku rab da koy def rab li muy def bari na trop trop trop suñ borom nag dimbali nañu ci moom yaakaar naa ñu ngi ci jëflanteeg nit ñi di tam ay résultats yoo xam ne yu bari la incha allah te ci cuuraay bu doy waar waaw cuuraay boobu moom daanaka naa dina nga xam ne ñi ko xam bari na nga xam ne képp koo xam ne rab da la jàpp mhm. wala wàllu shayatin mhm. wala wàllu liggéey moom li ci gën a yéeme mooy ci place boo ko taal mhm. ci misaal boo ko taaloon ci euh, kër wala ci ci ci ci ci ci ci chambre wala nga ko def ci place su liggéeyukaay bu fa nekkoon dafay dem bu jàppul nit ki ba nga xam ne euh, daf koy te nelaw wala muy gént gént yu bari di jaxasoo. loolu lépp da koy daal di dindi allahu rabbi. Mhm. te euh, bi ba du manqué léegi ni nga ko waxee dafa mel ne fi nga koy amee day jafe daal. waaw cuuraay bi moom bu dee mhm. euh, a baax. Mhm. waaye ñu ngi koy programme waat ci année deux mille vingt quatre bii. Euh, ngir defalaat ci lu ñi bëgg nañ ko toujours nag buñ ciy liggéey. dañ lu bëree bëri kante bu bëri. ndax moom maanaam dafa jafe am. ndax li tax mu jafe am mooy. yi ñu composé pour def ko moo bëri. te yi ñu composé rek. Mm-hmm. daanaka day faj lii ma wax. léegi nag ñu boole ci lu bëree bëree bëri. Mm-hmm. Euh, pour man cee dimbale nit ki pour mu gën a gaaw. kon daal ku ko kon daal ku ko taal sa kër ak sa njaboot moom. mucc na mucc moo tax am na ñoo xam daanaka boo leen joxe benn po bi gën a ndaw. Mm. wala bu diggu doom yi bu ñu dellusiwaat. Mm. dañuy fexe am yëpp. am wala ñu fexe am bu mag bi. Mm-hmm. yaakaar naa am na ñuy jaar ci yow sax di ko am am na tegtal bu am. 77 108 51 50. ku ko soxla tamit boo demee foofu di nga ko am. waaw ku ñëw ci ñun tamit da nga ko daal di am incha allah. waaye cuuraay la boo xam ne moom. Mm. doy waar gi moom jéggi na ndax ñi xam bari xanaa ko xamul daal. waaye ku ko xas xam ba xam ko moom. Mm-hmm. doo ko nangoo manqué incha allah. allah am euh, sama benn jigéen. Mm-hmm. Euh, dafa am rakkam bu jigéen. Mm-hmm. boo xam ne que dafa gaañu. ko kooku nag dundam yëpp dundul bànneex presque pratiquement euh, mel na melokaan boo xam ne dafa xaw a ko gis dina xam ne kii am na rab. daanaka amul liberté fierté ci dundam yëpp. Mm-hmm. ay parents tamit sonn ci. Mm-hmm. yàlla def mu génn àddina. Mm-hmm. mais dafa génn àddina ci jeudi bi. mardi ba. néeg ba mu nekkoon. takk ba taal kër ga te kenn mënul xam ne lii moo ko taal mu doon lu doy waar kër ga lakk ba jeex sama benn xarit bu nekk France nga xam ne fa la papaam ak yaayam dëkk loolu noo ko mën a waxee ci rab xanaa léegi loolu sax warees na ci xame ne kon rab la ndax euh, rab ci boppam Mm-hmm. fu muy dugg mm-hmm. mën na faa def jeexital mm-hmm. fu muy génn tamit mën na faa bàyyi jeexital. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye ñoom nañ sant yàlla bu baax. Mm-hmm. ndax ginnaaw ba jàmm rek moo fay topp rab bu fay gent la. incha allah waaw bu fay gent la te rab moom gent moo jóge fa définitivement waaw mag ñi dañuy wax ne. rab ci boppam amul ab gent maanaam fu mu xas woon ginnaaw. wan na ko ginnaaw. maanaam maanaam duut fa jaar. waaye lu am la lu mën a taxaw ci yàq dundug doomu aadama la. waaye lu mën a defar tamit dundug la. te am na yenn yoo xam ne bu xasee topp nit ki. pour nit ki tàqale ko ak ki mu topp. jafe-jafe la jafe-jafe kon nag numéro am di 77 750 22 60 77 750 22 60 Tigo bi ñaata la. 76 396. 53 96. 76. 396 53 81 81. 81 bu ci juumaat doo xam ku mu gën a. 396. waaw 53 81. 396 53 81. mooy soo kii Tigo bi. Ah. beneen bi 77 750 22 60 mi ngi ci Kër Massar. Euh, wetu Jamil Karo. wetu Jamil Karo bu dee Touba. Touba ñoo ngi Madiana. 6 mm-hmm. euh, di suñu kër foofu la ñu nekk incha allah. nga abonné Tektal TV ba euh, fekk ko fi dis soxla lu mu def ko laneen émission boo xam ne que ci diwaanu Casamance ak Ziguinchor ak Cap Skirring lu fi baax rek ñu wanaale ak Serigne Modou Kara Lo jël Air Sénégal gërëm Aïda Mbodj gërëm Sadio Mané bu baax a baax a baax a baax ñun Air Sénégal après di ñu defal ay faveur yoo xam ne que day gën baax ci ñun équipe technique Baye Massamba Diop a ngi ci beneen côté bi euh, Petit Sow a ngi ci beneen côté bi Xarmat a ngi ci beneen côté bi euh, Tektal TV daal bu baax a baax a baax gërëm nañ équipe technique bi àndal gërëm nañ tamit ñëpp kon xewal dikk loraa nga dakk bitim réew abonné leen ci Tektal TV ñu di leen wan gars yi di xuus ci ndox mi ñu dugg ci biir wan leen laneen tey nag fii mooy fii ak Tektal TV Mamy Danfa ñëwal Ousseynou Ly ñëwal Mohamed Ndiaye ascenseur boo ñëwee ma indile fii bu baax a baax a baax a baax Moussa Niang gërëm nañ Baye Massamba Diop gërëm nañ euh, Soxna May Diop Soxna Yacine ah. ah. Soxna Yacine tey moom. <laughs> moom tey dañoo dañoo daa ànd ñun. daa ànd ak ñun jàppale bokk ci émission bi. macha allah waaw allah tey daal kon xuus la <laughs> Soxna May tamit ñëw na. <laughs> Ah, macha allah xale yi tamit ñëw nañ. nañ. Ah, macha allah tey moom émission bi nañ ko waxoon rek bu spécial la ñuy am. bu spécial la nag kon jërë ngeen jëf mbokk yi abonné Tektal TV bu baax di nu seetaan ci bitim réew fu nu mën di nekk nga xam nag yemalewu leen dara yéen suñu doole bu baax a baax fu waay mën di seetaan nag di seetaan ci YouTube bi moo nu gënal ndax foofu dañu yokk xéwal bu baax a baax ngeen bàyyi ko képp kuy suñu soppe rek ak nga wax sa soppe yi ñu abonné Tektal TV bu baax a baax sëñ Modou Kara Lo li ma bëggoon laaj mooy kun liggéey ba mënul am liggéey ak kuy xëy di wut liggéey mu tëg ko ak koo xam dañ ko liggéey liggéey liggéey ba nga xam ne que day biddanti heure yow day sawar ci nelaw heure nelaw du nelaw loo ci wax loolu loo ci man waaw jërëjëf sëñ Cheikh liggéey moom alxuraan moo ko wax. boo demee ci yonent yàlla Moussa bi ko yàlla di yónni. da ko yéen ci ñoo xam ne ay lañ doon liggéey nit di ko yàq. xaala Moussa maa jiitum bi shihra inna laa sa yubtiluhu inna laa laa xamal mufsidin bu ko defee ñooñu nag euh, dañoo am waaye liggéey dafa nekk ñaar. dafa am lu ñuy tuddee ashihrul xaqiqiya maanaam liggéey boo xam ne dëgg la. maanaam bu ñu ko defee ni dañ koy jàpp direct. am na liggéey boo xam ne nag maanaam ashihru taqayul la maanaam loo xam ne day nuru nuru dara te fekk du dara waaw li nga xam ne dara la nag mooy ñu fekk nit koo xam ne kuy liggéey la mm-hmm. ñu fexe ba bañ loo ko liggéey boobu wala ñu fekk nit koo xam ne dafa am ku mu bëgg mm-hmm. ñu def dëddale seen diggante ñoom ñaar mm-hmm. léegi dëddale nag ñu bari dañu jàpp ne maanaam diggante nit ak nit la ñuy dëddale mm-hmm. waaye manees naa digg dëddale nit ak liggéeyam waaw ak place am ak métier mi mu nekk nga xam ne man na koo mën trop ba ñëpp xam ne man na ko mais amul way gi léeg nga gis koo xam ne man naa way lool ci li muy liggéey mais amul xam-xam bi. amul xam-xam bi amul xam-xam bi. Hmm. liggéey nag bu la jàppee bokk na ci lim lay gën a def mooy di la di la taayal loo. bu fekkente nag ci fan yu njëkk la. Hmm. bopp buy metti lay ëpp lu muy def. bopp buy metti kon ñu bari. waaw di la def di la def tamit yaram boo xam ne dafay faral di tàng lu bari. yaram buy tàng mais tamit du continuer. mais guddi ci lay ëppee. Hmm. asihru taqayul nag maanaam mooy liggéey boo xam ne du dëgg. du dëgg loolu mooy léeg-léeg nga xool koo xam ne day wane ne ci misaal maanaam mën naa jël lu mu ne ay xobu garab mu mel ne boo koy xool da ngay jàpp ne xob yi daf ko def xaalis mm-hmm. te fekk moom mi def loolu sax ci ñi gën a ñàkk la bokk mm-hmm. parce que bu fekkoonte ne loolu maanaam euh, liggéey bu dëgg la mm-hmm. su jëlee ay xobi garab maanaam def ko xaalis ci ñi ëpp xaalis ci àddina bi lay bokk loolu nag mooy sihru taqayul loolu ñu ëpp ci nit yonent yàlla Moussa moom lañ doon def xataa ba ci jamono bi bari ñoo xam noonu la ñuy def maanaam nga xam ne mën ñu jël ay ay béjjën mm. mën a jël ay ay euh, morceaux yu xonq mm. defar ba nga ñàng ba nga xam da nga leen di ragal fekk dara nekk fa aw xott moo fa nekk foofu ne sa wax ma am lu ma leeral yéen ñi seetaan Tektal TV amul kuy dugg fii di ànd ak dóor képp ku yor naan la 6 millions ma defal la ko 12 da lay nax indi 12 millions ma defal la ko 24 da lay nax xaalis dañ koy liggéey kon ngeen moytu bu baax a baax a baax jigéen buy dem ci sëriñ tamit lu la sëriñ bi man di tegal fexe ba ne naa ko wax diw sama yaay sama papa sama mag ba nga xam ne du yéen ñaar kese pour mu bañ laa dóor damaa bëgg kuy seetaan Tektal TV ngay yeewu boo ñeewoo pare tamit ngay xalaat lu mën a nekk door dóorkat yi ngeen moytu leen ko parce que am na seen soxla dañuy encaisse sa xaalis ba pare bloqué la dootoo leen jot bu baax a baax nga continuer fi nga nekkoon ci loolu. waaw sëñ Cheikh gis nga loolu nga wax lu bari la fi ne bari xam ne kenn mënu leen a woo jot waaw maa ngi ñëw mm. kenn leen a woo jot leen mm. te buñ la bëggee woo ñoom maanaam woo la mm. nga xam ne ni nga koy faral di waxee avant ñuy encaisser dañuy neex a jot mais waxtu wu ñu jëlee sa xaalis du doo leen mën a jot loolu nag nit ñoo ci war a yow baax hmm. su ko defee ñu ñëw ci wàllu liggéey boobu nga doon wax hmm. liggéey nag moom lu gaaw la hmm. ci jàpp nit yi ko man dafa bari alquran li muy baax baax daf ko man trop surtout ci wàllu dëddale wàllu garab yii ngay gis nii daf ko man wàllu ndox mi daf ko man wàllu sawara daf ko man ndax doomu aadama yi dañoo am ñeenti tabiyen yoo xam ne li ñuy bari bari génnuñu ko muy ndox ak suuf ngelaw sawara sawara ci misaal ñun ñu toog fii ñëpp mu génnuñu ko kenn ku ci nekk benn yaa ngi ci boobu mm-hmm. wala diw mi ak diw mi bokk léegi nag mm-hmm. bu fekkente ne mm-hmm. da koy xool ba xam ko rek bu ko liggéeyee pare bu ko yóbbu foofu da koy daal di jàpp ci lu gaaw ci lu gaaw waaw moo tax loolu tamit lu am solo la moo tax xam-xam daal du ay pexe waaye xam-xam dëgg-dëgg bu ko nit ki amee dana ko dimbale ci lu bëree bëri kon ngeen dégg bu baax a baax si ñu kun liggéey lan wax Afrique lan nekk ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax léegi lan moo waral tey par exemple ay ñoom Mbappé ak yooyu ñoom doo leen gis ñuy takk duñ naan duñ diw duñ sangu duñ suuru comme ra am amagun 22 ans téye coupe du monde te wàññiwu wuleen dara te fii xale xale bu fi amoon xam-xam sax danaan la nëbbutul ba am 40 ans. tun liggéey daal liñ koy ragale dafa mel ni ñun ñu ko gëm mi ngi ñu yàqal mais ñi ko gëmul wàññiwu leen dara. waaw suñu jeex fii xam nga Afrique la. Hmm. danga gis koo xam ne dafay bokk ci benn famille. wala mu nekk ci benn koñ. wala mu nekk ci benn place liggéeyukaay. nit ñi di ko gis muy liggéey dem ba tàmbalee avancé. am ñoo xam ne dañuy jàpp ne kii bu avancé ñoom dañuy deltu ginnaaw. Hmm. loolu nag moo leen di jaral ñuy dem di leen def dara di leen hmm. yàqal di leen gàllankoor. Hmm. dafa am ñoo xam ne maanaam seen xol moo yàqu. seen xol loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko hadis boobu toujours ñu koy fàttali. dafa waxoon ne dabba ilaykum daawul umam min qablikum al asadu wal baxda mu ne damaa gis benn feebar bu daloon nit ñi jiitu te feebar boobu dafa raam jublu si leen mm-hmm. te loola mooy soxor mm-hmm. ak mbañante ak bañ nit ki avancé bu dee nag maanaam ci nëbbutu ci wàllu bët mm-hmm. kooku yonent bi salaa salaam moo ko digle su yaay Aysa radiyallaahu anhaa nga xam ne jigéen la bari woon xam-xam lool nga xam ne yonent bi daf daan wax ne xusu nisfa diinikum min haasi Umayra seen génn wàllu diine man ngeen koo jële ci moom Aysa nee na yonent bi salaa salaam damaa digaloon waxtu wu ma xëyee ma muslu ci cat maanaam muslu ci bët dafa am ku ñuy tudde almixyaan maanaam koo xam ne ñaari bëtam lu mu xool mu am gàllankoor am koo xam ne làmmiñam lu mu tudd mu yàqu fi mu ne àddina amul ko fi am li nga bëgg même ba ci ñooñu ngay tudd ay ñoom Mbappé sóor yooyu ngay tudd yëpp amul koo xam ne li nga bëgg lépp ci àddina am nga ko lu mu bari bari ba nit ñi di ko yéem rek am na loo bëgg loo xam ne suñ borom joxu la ko kon ngeen bàyyi ko xel numéro yaa ngi noonu ci écran bi 77 750 22 60 sëñ Modou Kara Lo bu dee ci Kër Massar mi nekk euh, Jamil Karo bu dee Touba Madiana la nekk bu baax a baax a baax a baax Tigo bi ñaata la. 76 396. 53 81. 76 396 53 81 ñaar am na whatsapp nga dis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko léeg-léeg ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul a baax baax a baax ñi nga xam ne que dañu jàpp ne seet dafa araam. te yow nga jàpp ne seet moom li gën a doxal sa liggéey la seet li nga doon seete sax dafa néew ba waa bitim réew yokk ko ndax envoyé bi ñu la koy envoyé day métti ndax nga ne ku la ñam faaw ñaareel ko loolu loolu ñëwaat ci degré seet bu baax a baax ñi ko dàq ci àdduna bi nga bokk wala ñi ko dàq ci Sénégal. waaw loolu yow mat nga ci ay mat nga ci seede. Mhm. ndax am na ñoo xam ne bu ñëwee. Mhm. jaar ci yow. waaw euh, bu ñëwee dañu ñëwaat ci yow. Mhm. parce que nit moom daanaka mënoo koo nax naxaat ko. bu dee fi nga njëkkee ci wàllu seet ndax dafa dagat dafa araam kooku li ma waxoon rek loolu laa ci wax uh-huh. man d'accord naa ci biir réew mi borom xam-xam bu mu mën a doon d'accord ko a baax a baax a mu wax ci kaw nga ne d'accord nga ci da weddi ci xam-xam mu mën a doon borom xam-xam ci nga ñëw toog indi say addila ci alxuraan ak sunna uh-huh. ma ñëw andi ko hmm. loolu du tey laa ko njëkk a wax ci kaw ndax moteur benn indil problème waaw waaw loolu moom yàgg naa ko wax du tey kese hmm. maanaam ku mu a doon rek yaa ngi si da ngaa mokkal alxuraan bay naafila ñaar isib Ah, jàng xam-xam di lépp sëñ Amadou Rafaay Mbàkke bu baax a baax ñu ngi koy nuyu sëñ Amadou Rafaay ñu ngi kontaan yóbbante bi nuyoo bi yëpp nuyu ñu ko baax. bi ñu ngi koy nuyu di ko ziar. di ko mm. ñaanal yàlla may ko fanu gudd ànd ku wér. Mm-hmm. di ku baax ku mm. koo xam ne jëmul ci caaxaan. Mm-hmm. dëgg rek la jëm. Mm-hmm. di ku amug yëg. ñu koy ñaanal suñu borom may ko fanu gudd. may ko ak ba mu àggale ay yéeneem. amiin waaye bu dee ci wàllu seet daal. seet waaw maanaam képp koo xam da ngaa jàpp ne dafa araam. d'accord mën nga ñëw nga indi say addila ci alquran léegi tënkal ñu rek fi ngay wan ne dagan na rek ne dagan na rek waaw mu hmm. xam nit ki noo ko mën a jëriñe hmm. waaw maanaam xam nit ki noo ko mën a jëriñe hmm. parce que kii bañ seet moo dem moo dem ci euh, nasaraan bi mu seetal ko parce que nit ki bi ne ba yëg dara ci yaramam dafa dem ci kenn ne ko dama feebar pour kooku xool lan moo nekk ci moom man daw ak Cheikh Abdou damay lijjan seen mbir de waaw loolu nag loolu lay jëriñ maanaam nit ki ñëw benn dafa feebar wala dafa am ay jafe-jafe nga xam feebar bi lan moo ko sabab hmm. wala nga xam jafe-jafeem yi lan moo ko sabab hmm. nga man ko ko dindil incha allah loolu rek la